ak sama yaram yi fi doon métti yëpp ah. yëgatuma ci dara ah. waxuma dara way sama ballottement bi nga xam ne daf maa sonaloon yëgatuma ci dara te lima gëna neex fi mu ne dama bëgg ah dama gëna doon ndaw ah. man lima jaaxal garab gi dama gëna def ndaw gisoon ni ma rajeunir non da nga rajeunir ah gisoon ni ma leer non da nga leer lepp nak garab gi la jaaxal na ma nak garab gi foko jeex garab gi la de ana garab gi garab gaa ci bir garab gi rek yaa na naa ma garab gi te gisaguma dara garab gaa ci bir xaaral ñowal lako ah rek yow xaar rek indi ma indi ma ah ma taam waaw xool garab gaangi ni garab gi nak mom waaw bayima ba ma tok ba nga tok ye wala faaw nga toog yow bàyyi ma ba toog rek wax la garab gi moy gën garab ko tok xaaral ma toog xaaral ma toog xaaral ma toog bàyyi ma taam laa waa ji bàyyi ma taar. waaw garab gii. Uh-huh. mooy métallonique. mooy métallonique. métallonique. Ah, métallonique. garab gi. Uh-huh. dafa baax ci ballottement. ci ballottement. baax ci maanaam ah, da lay rajeunir. rajeunir maanaam. Mm-hmm. da lay delloo ndaw. da lay ndaw daal. waaw maanaam boo ko jëlee dangay ngay dellu ndaw. rejeunir mhm. boo dee ndaw nag mhm. maanaam da lay téyel sag ndaw da lay téyel ndaw jox la wér gu yaram mhm. macha akuk cawarte akuk cawarte ak ak lépp macha allah macha allah métallu mi nii mais garab gi am na solo ba abdu waa garab gi yow fan nga ko jële laa ilaha illallah nag uh-huh. lan naan la la yëngu uh-huh. la ko yëngu la ko ëpp doole ëpp garab bi ki ma ko jox uh-huh. oustaz ñu koy wax xaadimul muslimin. xaadimul muslimin. waaw waaw. ah xaadimul muslimin de mooy liggéeykatu jullit yi. ah dégg wallahi Asim Ndiaye. laa ilaaha moom. liggéeykatu jullit yi la. ndax jëmm la joo xam ne. waaw macha allah. dafa jàng xam-xam. ci wàllu alquran. ba bitim réew. ndax garab gi. ci lim koy composé. Mhm. alxuraan a ngi alxuraan waaw. Mhm. jàng saar woo ñu naan. Mhm. wasiin wa saytuun. watiini watiini wa saytuun. Ah, waaw waaw. maanaam garab gi. mooy suuratu tiini. tiini waaw. tiini googu. waaw. tiini googu. ak ak dafa jël mbóot ma. alxuraan mooy lépp. mooy lépp day bàyyi matar alxuraan mooy lépp. wallaay day dafa tiini googu. waaw ak tuun. waaw ak zaytuun maanaam mbuut ma. waaw maanaam zaytuun. boole ko ci. waaw ak ak ak ak garab yi nga xam ne xob yi nga xam ne. Mhm. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. daanoon ko wax nee na gàncax gi. Mhm. lépp luy faj doomu aadama. mu ngi ci biir gàncax gi. wallaahi dëgg la loolu nag Oustaz Lamine da koo gëstu mhm. ba xam gàncax googa mhm. ak li ni composé mhm. boole ci mbootu alxuraan moom moom la composé garab gi ndeysaan macha allah macha allah macha allah waaw de ah kay waa garab gi léegi fi mu ne ku ko bëgg nan lay def waaw yomb na hmm. ndax moom yàlla dogal na boo soxlaa moom da ngay commandé de commande rek waaw commande nga koy amé de. commande dong du garab yo xamné dañuy wër ci dëkk bi di ko wane. ak a ak a yoy mm-hmm. waaw tay yalla dogal na sha allah. Mm-hmm. ñi ko jottu jël. Mm-hmm. xam nañu njariñ li ba nga xamné ku ci nek yaangi def say commande. lo tax ku ko soxla dal bu dé fi Thiès la. wala Touba. ak bu mënti doon. amna ño xamné ño koy importer. manam dinañ la fekk fa nga ne. ñu jox la ko ñu livré ko daal ñu livré ko waaw. Mm, na am na ay livré lam dëgg la ñoo xam ñoo koy livré la. ah macha allah ah waaw. ah Baye Abdou man de ni nga dugg ci dëkk bi ba xam dëkk bi ba xam garab gi jaaxal na ma waaye léegi numéro téléphone bi nag. def nañ ko ci mi ngi nii. ah. 77. 77 waaw. 781. 781. 79. 79. 71. 71 loolu de leer na nañ. bu fekkee ñi ci bitim réew la. waaw mën nañ koo jot ci whatsapp. whatsapp bi waaw waa bitim réew. waaw ah, waa bitim réew. waaw bu ngeen ko soxlaa. Mhm. yéen mën ngeen koo am ci whatsapp bi. ci whatsapp bi waaw 77. 781. Uh-huh. waaw 79. 79 71. 71 Oustaz Lamine Ndiaye. <laughs> jaay maa la xool gars yi gis ngeen de <laughs> wax jaa ngoog. waaw woo leen ko rek. waaw woo leen ko rek. képp ku yéene sa yaay gudd fan wala nga yéene sa papa gudd fan wala nga am menn mag moo xamante ni am nga ko te yéene ko gudd fan wala yow sa bopp sax nga yéene sa bopp gudd fan biteel bi mënul ñàkk nga am ko ci sa kër di ko utiliser chaque jour bu fekkoon ni doomu aadama application la ma ni la biteel bi daf koy mise à jour daf koy beesalaat buteel bi day tax nit ki du gaaw a màggat day yeexal ak màggat te da koy dolli kattan dolli ko wér képp ko am problème mu biir buy metti ak biir buy metti bu ma mën a doon rawatina seere fexee la di ko utiliser moo ci gaaw butéel bi nag boroom xam-xam bu mag bi ñëpp xam ci Sénégal ak bitim réew muy Mouhamadul Amine Ndiaye xaadimul muslimin moo koy liggéey moo koy defar ci xam-xamam bu sell di jëm ji ngeen di gis ci image yi ci kanamu kilifa yu bari ci réew mi mu fay toog di fa yëkkati ay kàddu ndax xam-xamam bu sell te rafet dem ci réew yu bari itam gëstu fa xam-xam bu sell te rafet dooga ñëwaat fii ci réew di leen ci jariñ kon nag yow mi may seetaan bul ko tàyyi benn yoon woo ko ci numéro bii affiché ci butéel bi di 77 781 79 71 Mouhamadul Amine Ndiaye xaadimul muslimin ñëpp xam ko ci réew mi ak bitim réew ndax xam-xamam bu sell ñëpp xam ko ci télévision yi ak site internet yu bari butéel bi nag xam-xam bi ma ko defaree génnul science ak alquranul karim am na ci loo xam ne nag ku ko mosul mënoo koo xam te mënoo koo tàqamtiku kon nag mus leen ngeen xool njariñ li nekk ci butéel bi ku mus da nga li